Hey, tay mai kirai me me hey hey guy lại sarai Liza me me me dele wow con me dele configure bay loy loy wut sama koñ le guy dama ñew vir kirai yof tay tass ak Désiré Ibrahima Seck ki nga xam ne mu ngi xëccoo cái me dele waaw me dele fi nga dëkk waaw maa ngi fi de ah yow loy wut sama koñ mbay ba koñ fay am dara la la me dele mais deux heures laa ko see. waaw non il faut que may ma dix minutes tey dix minutes wala cinq minutes tey. ah bon cinq minutes kay nga may may. mais gannaaw nga bëri na coow trop. boo bëggee trente minutes am ñu may la ko. mais <laughs> madame. naka mu. la ilaha illallah. meu va bien. mais. mais mais déedéet. ça va mais ne def naka gannaaw yow. entraînement ça va. mais déedéet nga mais responsable politique responsable politique APR kii la. waaw gis nga ko de. mais Désiré dama bëggoon nga may ma cinq minutes ñu waxtaan. ah acca bokk. mais mais mais mais Désiré non non defal loo neex. mais ah. mais Désiré. waaw. mais Grand Yoff yëpp bëri coow nag lan la. Grand Yoff. waaw. ah Grand Yoff dafa peuplé. Ah. donc foog mu bari coow. non non mais nee na la fay tuddee ak ak ak ak ak maire bi nekk foofu. dégg naa match derby la match de. non lool du match. en tout cas match derby la man parce que foofu Ibrahima Kébé nga fa xaw ma mooy jour boobu. Alioune Badara Alioune Badara Kébé nee moo fay moo fay titulaire mi ngi kii di def ah, ah, mbënd bi ah di di di di jënd ay ay. ay pompe ak yooyu ay pompe ak yooyu xam nga. Alioune Badara Kébé est-ce que ko yóbbu sax mu jiyaat match vétéran. la. waaw eh dégg naa Alioune Badara kenn xamul la fa de am na kabar lañ xam de. ah Alioune ci social. non non non léegi dégg naa sax xaalis daal nga yor di écraser ñoom gars yi. non non te amoo fa peuple gars yi lekk lekk sa xaalis mais nit ñi ne dangay dañ lekk ma ëpp xaalis man kay nit ñi dama ànd ak ñoom ci kii mais lan moo tax non non soo fa amoon dara nag soo fa amoon mbooloo gañe gañe fa la moo tax ñu gañe rek. ah mais jiituwuma man dama doon jàppale rek. da doon jàppale. bien sûr. ah waaye nag heure bu ñu sampee suñu nan nga xam ni eh, samp nan ko. ah fu mu nekk nii yow da nga doon lan moo tax ki nga daan jàppale nga wax ko nan nga nan ko wax. man président laa mos jàppale jàppale wu ma kenn. non non ah mais sa sa ginnaaw mu tudd. Cheikh Bakhoum waaw xam nga président aussi moom la jiitale woon ci élection locale yi. Uh-huh. ni ñu jàppale leen ko moo tax ma jàppale ko. mais ah. élection locale yi jeex na kay. Uh-huh. ah ma toogaat sama ruq liggéey rek. ah léegi président soo la nee jàppale waat ko nag. ma jàppale ko. ah amoo ci problème. ah mais mais mais gën a lan moo tax nee nañ waa APR jubóowuñu lan moo tax jubóowuñu te ngeen topp ngeen bëgg ngeen boo bokk benn ki ngeen def bëgg lan moo tax jubóowu leen. non xam naa kii saaga fii kii wax fee kii xambu fee te yéen a bokk benn garab. ah peut-être ku ne daa bëgg a wane sa pour rek. ku ne dafa xër pour voilà liggéeyal le président Macky Sall. Ah, ah. mais leader yi en tant que tel amuñu problème bu grave seen biir dañuy tajee ci ngénte yeeg. daji mhm. di waxtaan di kaf di rek. ak grand li nga liggéeyal Macky lan moo tax Macky dugalul la ensemble dugal pour Coura Macky man loolu moo ma jaax lan moo tax dugalul la lan moo tax dugalul Ousmane Nawel Ousmane Noël ah lan moo tax dugalul ñooñu responsable yooyu lan moo tax loolu maanaam kon ki nga xam ne ñoo ñu naan ay saagakat lañ d'accord nga ni. Macky Sall dafa am saaga ay saagakat. Ah, mais waaye yooyu ñoo ñu dàq saaga. ah ñooñu saaga Koura Macky ngi toj assemblée bi. waaw Koura Macky. waaw Koura Macky kay actuellement moom moo dafa yéex a ñëw sax. mais mais moom lan moo tax ngeen jiital ko tamit ñu ne mooy saaga saagakat la. non saagawul da leen wax dëgg. parce que non non yow yow kon d'accord nga ne kon a yéen da ngeen fay saagakat yi. Ah. na leen. kan mooy saagakat yi yow yow gis nga Guy Marius Sagna gis nga ko assemblée. waaw ah. waaw gis nga fa yeneen député yoo xam ni voilà saaga rek lan fa nekkee wax lu ñaaw. Koura uh-huh. Macky nag bi ay mi ngi leen faj faj yu metti ah. kon d'accord nga si. ah d'accord. mais dama dégg si kii ah, euh, Fouta Tampi li mu sonnee sa Macky te hmm? nee na Macky du ko jox dara lan moo ma tax di ko saaga ah kuréel Macky est am na réaction ak Macky lan moo tax loolu. yow mi yow mi laa ko sañee laaj yow mi nga xam ne yaa gën a jege Macky sax. non da kuréel Fouta Tampi. Mhm. ah na heure am dafa ñëwagul rek. non parce que Fouta Tampi mënutul dem sax fee man moom laay xeexal ko si stress a koo fayal sax kër ah Fouta Tampi day yal yi di yalwaan ah. <laughs> no mais bàyyi ko xam nga hmm. xam nga xam nga kuréel ma kii mënta mënta Macky Sall mënta dajal fépp. mais mais xam ngeen ko xam ngeen ko si si si wax ji parce que dafa raag ba dafa kii moom bëgg a de. waaw waaw waaw mais xëy na bon xam nga nguur aussi moo mel noonu ah. parce hmm. que pratiquement bon facteur chance bi aussi da ci ne. Hmm. ñëpp ñëpp mënuñu cee kii c'est vrai que ni Fouta Tampi sonn na ci mais am na yeneen militants yu bari yoo xam ne sonn nañ ci. xëy na Fouta Tampi da leen gën a fës rek. Mhm. mais parti bi am na ñu ci sonn. mais loo koy conseillé li ak li muy wax Sonko te amul si dara yow loo koy conseillé. non na kon ne rek nekk ci yoonam. bañ ah te dara te dara loolu fu ah, xam nga rek bon engagement da ngay liggéey pour pour le Sénégal léegi nag loola ci fekk nga xam ni loolu la. ah <laughs> waaw euh, euh, euh, moom moom moom Fouta Tampi la doon wax mais nee na léegi Fouta Tampaani. Mm. kon kay moom li mu doon kaas saafarawu na mm. waaw Fuuta la doon kaasal kay te Fuuta actuellement tane na mm. ah kon kay moom na sant rek yow mi nga xam ne yow yaa jege wàllum wàllum or bi gis nañ ne fan yee passé Sonko da leen doon sàgg xeet na da ngeen jaay or bi mm-hmm. waaw or bi waxu or bi lan la waaw xam nga Sonko moom mm-hmm. vraiment man ay waxam sax yaa ko wax mm-hmm. parce que moom lim lay wax suba ba ngoon li ci bari du dëgg lu tax loolu non mais man maa ngi ministère des mines et de la géologie nekkoon direction du contrôle. Mhm. chaque année Sabodala day fay les redevances minières. Mm-hmm. mais su ko dem foofu yow demoo xam nga su ko dem xool terrain bi. waay doom bàyyi xaw ma da ngeen def da ngeen lekk xaalis da ngeen di séddoo yéen a bi. yow nga taxaw fi si naa xaw ma ne na ne day wax waxu moom dafa mos a dem levé mosul dem ci or mosul gis sax leen nga door. non non mais dem na fa dem na dem na foofu xaw ma. dëgg dugg la dem non non dem na foofu mooy fi or bi. mosul Sabodala Sabodala kenn du fa dugg. tax kenn du fa dugg. Sabodala. Uh-huh. Sabodala usine bi doo fa dugg xanaa ñu jox la autorisation waaw mais or bi muy wax chaque année. Mm-hmm. Sabodala day fay mi ngi ci site ITIE. Mm-hmm. dañ koy publier chaque année. li ñuy mm-hmm. fay ñu ngi ci. te ñun ñoo doon dem ba Sabodala jëli or bi indi ko dakaar ak waa douane ak waa Sagam. dugal ko ci avion ñoom ñu door a exporter. moo tax moom bu nee euh, Sabodala du fay or bi day wax lu ko neex loolu amul. ah kon da nga weddi loolu. non dafa amul sax def naa yi bari bëri du ko quoi ni leen Sonko moom ma li ñuy wax suba ba ngoon c'est des c'est des histoires. ah léegi euh, euh, gis nañ ko gis nañ euh, gis nañ ni fan yi Macky Sall waxu troisième mandat dafa doy waar. Mhm. ku ñëpp ñaan naan ay du naan troisième mandat est si ànd ak Macky Sall si troisième mandat. waaw xanaa gisoo démb sama maillot bi ma sol. démb ah. démb numéro 3 laa sol. yow di kon ni nga ànd ak Macky Sall. est-ce que moo gagné match bi démb.

ah mais dëkk bi doyal. mais sénégalais yi sukkali wu léegi ngeen waa léegi. Hmm. ñoom nee nañ ñoo ëpp Macky Sall doole. Hmm. mais nan dem nan nan man bu doon ñoom sax dañuy dañuy sawar Macky Sall bokk ñu gañe ko. Hmm. ci urne yi. parce que ñoom nee nañ amatul doole. mais kooku jaratul ragal. bàyyi ko mu ñëw élection nga gañe ko. mais yow da nga ni taxaw ni du bokk. daf may xaw a fàttali. temps booy quoi bu ñuy fubal xam nga bu amee joueur bu xaw a mag wala bu aay dañ naan non non non kii du fubal kii du fubal <laughs> noonu la mel nag moom mooy seen Messi moo tax gars yi non non du bokk du bokk. Ah. xam na ni bu bu da leen di duma duma yu metti. Ah. moo tax fu mu toll nii kay yii bokk ak ku leen rey lan yamale. moo amoon benn wax boo xamante ne kii dañ ko la ko génne mais gars yi weddi nañ ko euh, euh, Barthélemy weddi na ko dañ ne dañ ne woon dafa taxaw ne woon troisième mandat day am. mais bi bi ko ay leader am déggee dañ ne du dëgg bus ko wax parce que Ousmane Noël moo dénoncé loolu ne Macky Sall wax na ko xaw ma Ousmane kii euh, Barthélémy Dias moo ko wax ne troisième mandat. am na Bart moom la mosu ko wax. mosu loolu loolu mosu ko wax parce que am na ku ma déggante ku tudd Abdou Karim Messi neen du dëgg.

moom mi ngi mel ni nga jaaxaan di saw rek. waaw ah. ah. <laughs> jërëjëf DG ah, loo ñu mën a euh, euh, euh, sa question loo ñu mën may si Grand Yoff. waaw Grand Yoff daal mooy ñu gën a defaraat toogaay bi. Mhm. xam nga muy les jeunes ak les femmes ñu ñëw jàppale le président Macky Sall. Mhm. xam nga liggéey gën a yaatal base bi pour que voilà ñu mën a continuer di am ay ndam yu bare bari ci kanam. ah jërëjëf jërëjëf.